yan ci inauguration complexe Cheikh euh, rek sant sëñ Touba bu baax maa ngi sant sëñ Touba bu baax te di wax lii de ndamu der bu ñuul la doon ak foo man bokk rek euh, lii ndamu lisbaan bi yépp la lii ndamu sëñ tubaa la bu leen fàtte ni. bi yoonu murit dee soog a jug jàppoon nañ ni murit beneen taxawaay la am duma fa àgg waaye tey de sëñ Tuubaa si bésam bi wane na ni yàllaa ko ñor alxuraan a ko ñor sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi moo ko ñor ba mu yëkkati lu toll nii sëñ taxaa yëkkati ko ba tey ñu koy ubbi te ni ko ubbee seetal ni mu ni mu neexe si biir xol gannaaw ba nu wonee yëf yi nan la tëdde alxuraan lanu nu jëkk dalal si ñi nga xam ni ñoo war jëkk jàng fii xam ngeen kii werantewul kenn du werante ni sëñ tubaa dafa dëkkaale ak arxuraan feeñ na si bés bii kon lii ndamu lislaam bi yépp la waaye nag ndamu der bu ñuul la ndax kat sëñ tubaa fi mu àgg deram la jëkk kaweel ba pare nag kaweel fa mu bokk yàlla boole ko mu bokk Sénégal kon nag ñun suñu yàlla defee ñu doon ay taalibe Sëñ Tuubaa ay murit yoo xam ne kenn yaakaaroon kenn doyloon kenn ku dul Sëñ Tuubaa danoo sant yàlla si bés bii ba pare ñaanal Sëñ Muntaxaa Sëñ Muntaxaa waxoon naa bi ma ubbi Mazaalik ni leen xéewal bu yàlla wàcce la si ñun ak si lislaam bi yëpp ku ko déggoon day wax waxu daanukat la waaye tey université bi bésam bi wane na ni sëñ lépp léppam xéewal la yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg lool yàlla na nu yàlla dégg suñu ñaan gi tey di altine fukki fan ak juróom si weeru rajab lii xew fii Touba di doon ndamu l'islam bi yëpp di doon ndamu der bu ñuul bi yëpp di la di doon ndamu euh, euh, murid yëpp wax dëgg yàlla war na nu ñu ñëpp delloo njukkal sunu borom nan lañ koy delloo njukkal si kim nu booleel mu jël nu teg nu si yoon wi sëñ tubaa bëgg ba nu agsi fii kooku nga xam ni bëggul ku dul sëñ tubaa wutu lu dul ngërëmul sëñ tubaa Touba mu taxa yàlla na fi yàgg te wér yooyu yëpp nag dana am xam nga fii moom tubaa daal soo seetee xam nga sëñ Saliou dafa ma wax loo xam ni mooy atte bi mooy atte bi nee na ma Makka Medina. Arabie Saoudite sunu ñaanu maam Ibrahima la woon moo doon ñaan ñaan gi agsi toog nañu lu ma ñetti junni at xéewal yi di soog agsi dëkk bi amagul téeméeri at mel nii kon ñaanu sëñ Tuubaa gi lu mu la wax rek dana ñëw ndox mi dana wala ngaan avion yi di wàcc waaw euh, euh, capital sax day mujj Touba dafa jël capital Lemka Lemka moom doon capital capital africaine waxuma capitale senegal Sénégal mais capitale africaine ndax kat lii lii ni ñi mën na jóge fépp si Afrique ñëw di jàng si mën nañ jóge fépp si Afrique ñëw di jëgaan si xam-xam ndax kat nee naa leen ñoom dañu jóob ñu yaakaaroon ni murid yi ni noo sukke di su jóot noonu la seen xel euh, sukke déedéet nee naa leen sëñ Tuubaa xam-xam bi mu meññent bàyyi ko fi tepp-tepp yi rek la noo jariñoo bés boo xam ni xewal googu taxaw nañ si taxaw bu wóor addina bi yëpp daan si jëriñoo jërëjëf waaw ah, ah, gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu taala wa sallam di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi téwéer di ñaanal sëriñ Siidi ak njaboot sëriñ toog yëpp mu yàgg fi téwéer liggéey bi moom ni ko sëriñ bi waxee rek dafa toogoon dañoo taxawoon fii ñu bokk taxaw pose père premier père bi mu ne mu boole na ñett na gaaw na baax na leer loolu la waxoon loolu yëkkati liggéey bi ne ma yow laa ko dénk xam naa ñu bari am naa ñu bari waaye dama ko bëgg a dénk koo xam ne yow Serigne Touba dalay lay liggéeyloo te moo tax ma di ko dénk li ne ne ñaar dafa jege bëgg a sëñ bi ak sëñ bi di la liggéeyloo dafa jege te bokkuñu xam naa ne Serigne bee lay liggéeyloo moo tax ma bëgg laa jox liggéey bi ñu ànd ko muy li nga xam ne dafa wokkoon ci ñetti naal yi nga xam ne Serigne Touba santaane woon na ko muy nañ ma indi Touba. nañ ma tabaxal jumaa ji nañ ma tabaxal jàngukaay bi ñetti moo doon ni ndénkaaneel Serigne Touba te man lii laa bëgg a def sama liggéey ci Serigne Touba. loolu bi ma ko joxee nag loolu moo tax ma jël lépp lu ma war a matuwaay bu ma war a jël comme ni ko Serigne bi waxee léegi jël jëli mboolem ñi ma yaakaar na su ma ko ànd ak ñoom danañ ko réussir. ma jël leen ànd ak ñoom ñu di ko liggéey loolu moo ñu jox résultat bii tey. mbiram sëriñ bi moo demee noonu saa boo ci nekkee li fi ngay li le liy dem bu doon ak bu doon saxaar ma ne la fi ni muy demee doo xam lu mu doon li nga man rek waaye nag du bett ci ñun ndax sëriñ Abdoul Ahad waxoon na woon ne bi muy bëgg a tàmbalee natt dëkk bi mbiram Serigne bi da ngay am pëstéef ak volonté ak ak dëggu dugg ci fa muy jëm ak na muy demee loola bu ci sowet ne Sëñ Tuubaa ko yoral boppam loolu fenn ci liggéey bu baax a baax ndax yaakaar naa ne qualité bi fi ne ak ni ñu ko liggéeyee norme internationale lañ jël kenn nu cee corriger dara dara dara dara ba nii mu àggee waxuma la gaaw gee àgg waaye qualité bi ak rapidité bi loolu foo ko takk weesu na ko jërëjëf.